donc ñun nag suñuy jafe-jafe pour tënk ko si gàttal c'est que en fait suñu agence moo amul statut régulateur te ñun de régulation mooy suñu liggéey donc loolu moo taxoon loolu bokk na si li ñuy wax ne état bi war na ko revoir parce que en fait ñun dañu amul les euh, amuñu euh, les moyens ah yu pour mener à bien nos missions régaliennes on n'a pas un budget conséquent amuñu budget bu conséquent voilà te dañu soxla ay ressources humaines qualifiées te li ñu jot a am ñi ngi dem parce que lu ñu leen di fay motewu ko donc loolu la fuite des cerveaux donc loolu tam ñu bëggoon attirer l'attention de l'État sur ce fait là beneen aspect bi mooy motivation amuñu ko parce que contrat de performance yi ñu ñuy signante ak état bi commission bi war a toog saytu ko toogul depuis quatre ans donc loolu yëpp dafay participer ci liy fragiliser ak liy nësaxal quand même euh, l'aéronautique civile parce que vraiment munoo ne yow yaay contrôler exploitant yi di superviser loolu yëpp te amoo kàttan mën-mën ak xam-xam bu ko mote te loolu moyen la laaj ak motivation pour tey nit donc yooyu yëpp ay ay domaine la ak AIBDSA agence bi nekk aéroport xam ne récemment vous n'êtes pas sans savoir que ne ADS dañ ko jël boole ko foofu agence des aéroports du Sénégal dañ ko boole AIBD SA mais ñooñu ñu dem fekki ñooñu on dirait que sax bokkuñu si aéroport bi parce que traitement salarial bi ñuy am bokkul ak ñu ko am si aéroport bi dafa néew donc loolu tamit dañ leen dañ ko harmoniser lu mu gën a gaaw gaaw gaaw pour permetre quand même ñooñu ñu toll mais noo nekk si kër ak ñaari grille salariale yu bokkul donc fusion bi nañu bëgg mu gaaw pour permettre ñooñu ñu dem ci tënk daal yenn problème yi ñu fa yi si des nag bëri na takku na mënuñu fi nekk di ko lim mais dañ leen wax du gën a fay yi quoi voilà jërëjëf. Ah, Keba Dem secrétaire général du SITAC